fameuse femme ci oto bi jël si woon Adji Sarr ci guddi gi dama leen di déglu bu baax dama bëgg na ngeen déglu ko la fameuse femme sax laa ko tuddee déglu leen bu baax. Dakar Matin. ko jël si jël seen bopp seen taatu bopp oto bi féetale ko ak guddi rek xam nga comme bi oto bu ñuul kub ñaari góor ñoo nekk ci bi ak kenn ku jigéen. tak ñaari góor ak kenn ku jigéen ku am yaram nga xam ne dossier bi lu ñu wax lépp na bi dafa def lii lañ expliqué ñu te lii moo am Dakar Matin ñu ko jël si jël seen bopp seen taatu bopp oto bi féete la ko ak gudd rek xam nga comme ñun duñ xamal ko oto bi oto bu ñu kub ñaari góor ñoo nekk ci oto bi ak kenn ku jigéen ku am yaram nga xam ne dossier bi lu ñu wax lépp des na explication bi dafa di ku am yaram nga xam ne dossier nga ci oto bi ak kenn ku jigéen ku am yaram nga xam ne dossier bi lu ñu wax lépp des na explication bi dafa des te ñu lii expliqué ñu te lii ku jigéen kooku kan la parce que xam nga nekkee ne dañoo bëgg rek wax dëgg te yàlla tax ku dee sa bàmmeel dossier bi boo jàppee Ousmane Sonko xasa xasa xasa ba doyal tamit na nga wëlbatiku posez vous des questions simples ay questions yu simple laa wax banal aussi ñaari góor ñoo nekkoon ci oto bi jigéen ku daan dawal xam nga patron bi wax na lii dem leen ngeen déglu tësu Ahmed Aidara ba mu jëlee la seconde masseuse la même chose la wax nee na ci oto bu ñuul boobu góor a nga fa woon ak jigéen li tudd ci jigéen nag bëri na ci bi léegi nag nañ ko benn bennal tey jii sama gaay nañ ko benn bennal partage leen li sama li asajo partage partage nañ njëkk a déglu li ñu patron bi waxoon ba pare nag ma ñëw posé question yi man Adji Sarr musuma ko boole na ko yow yaay maase Sonko tout le temps amul dafa ñëw rek tombe mu war a dugg cabine tombe Sonko bu mu commencé yoonu bu njëkk boobu nag ba léegi amul jàmm Adji Sarr ma bàyyi ko su kër ga Adji Sarr bu mu maasee Ousmane Sonko ba léegi booba sama jëkkër moo nekk ci kër gi ak sama doom bu jigéen ak sama jànk ak beneen fii ba bu mu commencé ba léegi Adji Sarr amul jàmm sama jëkkër ñëw na benn jour fekk ma ci hôpital di ma indil añ ne ma waa Ndeye Xadi ma ne naa mun ma man de jombi naa ma ne ko ah, man aji daf may laaj sonko rek chaque jour mu ne ma sonko moom kañ lay ñëw sonko moom kañ lay ñëw ma ne ko ah waaw ma ne ko loolu moom kéemaan na mais sama xel mu sa xalaat lii si àdduna parce que bam pour kon d'abord Adji Sarr du moom rek mooy masseuse bu Ousmane Sonko taamu woon mu koy maase parce que patron bi expliqué na sax na maa njëkk a maase Sonko elle n'a jamais été l'unique masseuse de Sonko leer parce que patron bi wax na na Sonko maa ko njëkk a waat ko kon ñu d'accord ci parce que dañuy wax ne Sonko moo ko taamu moom rek mu ko doon maase kon boobu leer lu tax aji saar di rap rap Sonko gën la ñëw xanaa kay Pape Alé bu bëggee maase moo yëg li war a tax mu wara dem ci salon de massage waaye lan moo jaral aji saar muy harceler patron bi kañ la Sonko du ñëw wool Sonko mu maase ko mu ñëw maasew lu tax pourquoi xanaa kay kuy maasewu yow yaay yëg sa yaram na dangaa soxla massage nga dem defi ko waaye masseuse boo xam ne yaa ngi harcelé ba jëkkëru ndaw si jaaxal loolu jaaxal ko mu dem ci jabaram na ko man de damaa jaaxle aji saar matin midi soir mi may laaj sonko kañ lay ñëw beneen mbir mi yow ki nga wax na daf la violé ñeenti yoon waaye loo yàkkamti mu ñëw maasawu koo jàpp ne da laa violé ñeenti yoon yaa ko wax ci sa plainte looy yàkkamti teewaayam bay maasawu bay woote di wax na woo leen mu ñëw maasawu ci club yooyu ñeenti yoon yaa ko wax yaa ko wax nga ne saa bu ñëwee violé la te teewul yaa ngi harcelé jëkkëru ndaw si jëkkëru sa patron di ko na ko mbooloon Sonko mu ñëw maase wu la mën a ñeenti yoon te musoo manifester benn signe boo xam ne ñi nga nekk ak ñaaw nañ ci njort saa bu jëwee violé la nga ne da lay waa bu génnee nga boole wala bu lay violé nga yuuxu nga ne da leen génnee arme bu bu la violé ba pare nga génn woote patron ay ñu dem moom Adji Sarr était pressé de de de masser son violeur parce que moo doon wàcce kañ lay ñëw kañ lay ñëw parce que man loolu daf may ëlëm Sonko mardi la dem ca salon ba parce que i dégg ngeen patron bi mu ne lundi daa foogoon Sonko waaye altine moom Adji Sarr ba mu jotee message ndaw si daa foogoon ne Sonko mooy ñëw mu planifié lënd bi nañ déglu aji nag am na woo ne ko Ousmane Sonko ñëw tey ci gi mën ñëw kooku ñëw ba ci buntu kër gi mu toog altine toogee sama jëkkër ñëw indil ma rek altine la jàpp ne moom Ousmane Sonko dina ñëw maasi si tey altine booba moom yow aji wu am ku woo ñu dem ma reer ba pare mu dem ñibbi diggante vingt heures ak dix fekk waa toog ci buntu kër gi mu ko sëñ bi fii de place liggéeykaay la te heure bi sax heure couvre-feu la presque looy def fii mu ko maa ngi jéggalu déplacé wu dem taxaw ci buntu guduret bi bu mu taxawee foofu sama jëkkër duggaat ci biir kër gi. Dakar Matin. di jëndalaat sama doom bi meew fekkaat waa ji si porte bi mu toog mu dellu ko dàqaat muy deux sama jëkkër jënd meew ba pare duggaat ci biir kër gi jàll boutique woo ko téléphone na ko ki ma loon ma ku ma loon séen nga koy dàq ñëwaat na taxawaat ci buntu kër. mu dëkk na ko yow kanaa tëjoo vingt une heure jot nga gis ay mënu ko maa ngi nii si dama doon bàcc samay kilot sama jëkkër génnaat bu mu génnaatee fekkaat waa ji tombé ci gardien gouverne bi di ko parce que gardien gouverne bi dafa nekk sama xarit jëkkër man mii sax daf ma respecté ne ko fii place liggéeyukaay la loo fiy def ak loo bëgg mu ne ko man résidence membre bii laa dafa am ku ma mu dem sama jëkkër woo ma téléphone expliquer mu man kon de am na lu bëgg a xew mais lan la kii est-ce que ko pour mu def dara ci cabine bi mu ne ma en daal lii moo xew ma ne ko guddi tay nag bul nelaw defal tout ba ku laal porte bi nga jóg mu ne ma waaw aji dina ci kër gi di wër-wëri léeg-léeg mu ne tonton Ibrahima man ko su la woowee rek bul wuyu pour nga xam mais booba ñun xamaguñ la aji li di di programmer suñ ko xamoon li du am léeg-léeg mu ñëw def wi pour bëgg xam ndax Ibrahima nelaw na wala nelawul ba mujj gi mu dem tijji porte bi bu mu tijjee porte bi ànd ak waa juróom Ibrahima doon dàq mu dugg ci biir kër gi bu muy duggee ci biir kër gi visite kër gi ba kër gi daj Ibrahima a ngi xool de mais waxu ko dara Ibrahima dama kii. faalewu ma mais ragal na nday xadi xaaral ma woo su ma ko woowee nday xadi dina ko wax dëgg parce que mën naa ka woo mu fen ma man tit ma woo ko ma ne ko aji mun ma naam xooluma sax caméra dama ko piégé rek jàpp ko ma ko sànq sama téléphone dama xool ci caméra bi gis nga ànd ak ku góor dugal ko ci biir kër gi muy visite mu ne ma sama xarit la nee na daa war a ñëw ci kër gi mais nee day visite kër gi ba pare mën na ko une heure du matin xarit ñëw ci gi heure bi aji munu ma naa na ko aji looy programme munu ma temps final pourtant du dara dem mën na ko ah munu ma waa mën ko lu waaye reen sa loxo lay ma coupé sama téléphone loolu li ngi xew lundi bu set di mardi Sonko ñëw rek sonné si bi bu mu ñëwee sonné fekk fa sama jëkkër ak sama doom jigéen élève bu fa bu Sonko ak aji ak sama jàng aji mi doon ubbil Sonko ay vingt et une heures pile la Sonko dugg ci kër gi mais Sonko bu mu génn kër gi vingt deux heures la génn kër gi bu mu voilà aji aji koo dugal ci kër du matin aji kooku lan la doon wër ci bi une heure du matin aji kooku lan la doon rond ci biir kër gi une heure du matin damay laaj question yi may posé xanaa war ngeen ko mën a posé wu sax yéen nit nga téyeku salon de massage une du matin période couvre-feu nga ubbil ko mu dugg di wër cabine yëpp ñu laaj la lu tax nga ne kab nga ne sama xarit la dafa bëgg a ñëw marché wu xanaa booy marché wu kay cabine euh, euh, euh, salon da nga teel a ñëw xool nu mel mais une heure du matin kooku ñu dugal kan la kooku ñu dugal kan la période bu couvre-feu Sonko mardi la fa ñëw. ma sama jëkkër yëkkati téléphone am mu woo ma. ñoo ne. Sonko mardi la fa ñëw. aji woote woon na lundi ne Sonko day ñëw kon am su am na aji am ñu doon planifier dara parce que nit di ñëw di maasawu fenn rek. jarul woo ay nit aji ci lëndi googu dugal nit ci biir salon bi man waxuma ko de patron na ma ko wax une heure matin kooku di wër ay cabine lu fa daan def di rond Sonko ñëw fa le mardi ne ma xadi mën a ka naam mu ne ma est xam nga ne Sonko mi ngi ci kër gi ma ko waar mu waar ma coupé ba léegi sax tontu ko pour yàkkamtee jot aji ma coupé ko woo aji presque dix minutes mënu ma jot aji mu nekk en communication ma ne waa aji lu mën a dugalee client di wuyu téléphone nii ma sonn si pour occasion jot ko ma ne xaaral ma samay annonce parce que élève bu bees boo mu ngi fay ñëw bees numéro sax lu ma ci enregistré ma woote samay bu bees bi ma ne ko ana Ousmane Sonko mu ne mu ngi ci bi moom sax la nee dafa yàkkamti mais aji ma ngi sa ba di wuyu téléphone sama xel mi ñaaw ma ko defal tout xamal ma li aji di wax demal sa ruq ba nga déglu ko ndànk mu dem sa ruq taxaw ci ginnaaw dégg aji naan sonko de dugg ci kër gi mais dootu ko defati man ngeen a départ ngeen ñëw bala ngeen a yegg si fekk ñu pare ma ne ko dem leen ngeen def ko 4 mai comme que moom ginnaawam rek lay du fi yàgg ma waaw ñu dem def ko massage 4 mai tonifiant ba massage bi pare aji wax maman ne ko may ma maman moom génn parce que moom pare na te wu dara mu génn toog bu mu génnee aji toog si kanam mu génn moomi bu mu génnee ñëw sama jëkkër bi si biir néeg bi mu toog cinquante mille jox ko sama jëkkër bi jot xaalis bi aji dem ubbi frigo bi génnee lekkam yi nga xam ne résidence Mamour la doon jógee temps yooyu ba dama koy kaañu na ko résidence Mamour sa lekk fa lay jógee ku la koy indil yow rek aji ponkal nga mu ñëw na sone dugg ci biir cabine bi aji war dugg ci biir cabine bi tàmbali massage aji deful loolu aji dem taxaw di wax dix minutes nit ba patron ram mënu jot kan aji doon waxat kan aji doon waxat ba di ko wax ne ko Sonko yegsi na ci biir kër gi waaye tey la koy mujj dafati mën ngeen a départ ñëw aji ñan la doon wax ak dañu bëgg rek dëgg jib aji ñan la doon wax ak Sonatel mën nañu ko wax numéro yu aji doon wax réquisition yomb na ñu xam aji ñan la doon wax yan téléphone la doon wax ak lan lañ wax sax yegg si leen Sonko ñëw na ci kër gi waaye dootu ko defati man ngeen départ ñan ñoo war a mën a départ ña ko a jël seen oto bu ñuul bi te mu am ji am yaram bi ci biir lu tax aji xam ne waa ji da koo dëkk di ko violé aji kay moom ba mu amee beneen masseuse ñu koy def quatre mai ci yoon bu nekkee ne aji sàmm boppam dara ñu def ko quatre mai ba pare wartuñ génne keneen ki lu tax mu bëggoon a des moom rek ak Ousmane Sonko gis nga boo leen lijjantiwul affaire réquisition dañuy wooyu Russie yeeg ñu dugg ci système bi génn ko parce que xam masoon naa leen wax fii ci élection yi ne da ñuy da ñuy déglu ñu dañ leen yëddu di lire seeni message dinañ wax acteurs yeeg yooyu ñu contacter leen yooyu ñu dugg ci système bi xool génn bagage yi lépp war a leer yow nga ne kii da lay violé saa bu ñëwee maasaw mu ñëw di maasaw yàlla def nga am keneen ko nekk ci cabine bi ak xëyti mu laa ne looy génnee kooku aji ñu violé ko ba pare Sonko ñibbi aji génn ndànk layaam layaam dox ndànk dem ba ci jëkkëru patronam jox ko cinquante mille yi jooyul raful patul dox normalement joxe cinquante mille yi mu fay ci ku ñu violé damay laaj rek ci ku ñu violé c'est des questions ci ku ñu violé nga ñëw ndànk dugg sa biir néew ki na ko ah am Sonko da fay nañu xaalis am mi ngi ni fay nañu kii bi cinquante mille aji yamul ci loolu aji ñu ne dañ la violé wala ñu ne yow yaa ni dañ la nga ubbi ndànk sa frigo génne ca reer bi nga xam ne résidence Mamoun ay aji ku la doon jëndal reer boobu ci résidence Mamoun ñu ne ko parce que ndaw si nee na soixante mille la la dem fay par weer wax na la sax na la ah ponkal nga aji nga génne reer bi reer ba suur tranquillement mu mel ni dara xewul ñëpp gis la tëg la bët ci biir kër gi nga toog di reer sa reer ba suur ñu ne ku lay fayal lekk résidence Mamoun parce que nag xamante nañ nga ree violé nañ kii la violé yuuxu nga génn ndànk kooku fay fay la xaalis bi nga xam ne mooy massage nga dem ndànk jox ko patron bi jëkkëru patron patron ci kërum nday xadi waxoo na ko ki ma nekkaloon ci biir cabine bi daf ma violé laata loolu yow ba nga defee sa massage 4 mai ba pare génne nga ka nga doon massage ci biir cabine bi lu tax nga bëggoon ko génne xanaa sàmm sa bopp kay moo nekkoon bàyyi kooku ci biir ñu violé la ba pare nga joxe cinquante mille toog ci biir kër gi lu yàgg génne sa reer reer ba suur di dajala say bagage mu ne dara xew est-ce que ku ñu viole normalement di nga nekk ci état d'esprit boobu wala si état psychologique boobu léegi aji taxaw ci buntu frigo bi maman ñëw taxaw maman mooy beneen ma ko woo téléphone ne ndax pare nga mu ne ko waaw mu ko waaw mu ne la wax si moom nga trouvé ko tur rek maman ne ko ay aji aji looy programme aji lan nga la aji yëkkati dix mille francs jox ko maman maman ba buut ko de ne ko yow kanaa a liggéey Sonko pour mu takk la ko bàyyi mu seet aji tegaat téléphone ba ubbiwaat cabine ba Sonko pare solu yére mu génnee ko mu dem bu mu ko génnewee mu dem fekk avant sonk di ñëw si suba gi aji xëy na suba teel dem seen kër demee mu ne yaayam dakaa yóbbu hôpital parce que yaayam dafa gis kanamam di changé mu yóbbu ko hôpital mu def test de grossesse yaayam na ko dangaa ëmb yaayam jël test de grossesse bi ne ko dama koy déey sa papa laa koy yóbbul aji wax ma loolu ma ne ko indil ma carton bi ma xam ma am preuve su yaay amee preuve waa carton boobu yóbbu naa ko brigade de recherche mooy si suba gi affaire Ousmane Sonko bi si guddi gi la xew si suba gi aji déclare na ëmb si biir gi ba ñëpp yërëm ko muy ñëpp di ñëpp di maanaam sama jànk bi sax ngir yërëm ko ak maman bi nga xam ne moo ci kër bi ngir yërëm ko jamono yu Sonko demee nag ba pare aji déclaré waat ne moom yaayam daf ne ko na dem kër ga parce que day dindi ëmb mu wax ko sama jëkkër sama jëkkër na ko ana Sonko dem na mu ko waaw mu ne ko comme que nga ne yow da dem seen kër sa yaay dindi ëmb bi nday xadi ba pare aji yëkkati téléphone mu woo ma ne ma temps final final la may wax man de lu ma lay wax ci suba sama yaay neen damay dem kër ga dindi ji ma ne ko ay aji ragalal yàlla mu ne ma damay dem kër ga dindi dem kër ga dindi ci ko ma ne ko yow instant vingt trois heures jot na parce que tijjil na sonko lu yàgg sonko mi ngi génn vingt deux trois heures jot na aji nekk ci biir kër gi di dugg ak a génn dugg ak a génn di di wuyu téléphone si kaw terrasse bi di dugg ak a génn kanaa kuñ vewe rek loolu yëpp doo ko tal kanaa kuñ vewe doo nekk ci kër gi lekk ba suur naan ba màndi ah génnee sa saak jël ay yëre ay vaccin mu ne couture bu muy liggéeye ñoo ma ko jox kan mu may sama jëkkër ñaari vaccin ak benn cuub na ko jox na ko sa doom bi kanaa kuñ fay la doo tal loolu jour boobu ma ne ko aju fooy génn vingt trois heures bii mu ne ma dafa sama yaay dafa xam benn moto jakarta buy liggéeyee seeka caab moo may jël si ma ne ko seeka caab moom seen moto yi dañoo am autorisation pour génn mënu ma waa am na lees a passé xaw ma lu expliqué noonu ma waa baax na boo demee daal lu si ta am nag ma woo mais tuddul ma kenn de tuddul ma ay sonkaat tuddul ma lenn moom si biir boppam la doon wax mu dellu génnaat foofu demaat sama jëkkër gi na man sax de na man sax de ëmb bi du ma ko dégg du ko dindi parce que dama yàgg reer pour am ma ma coupé si aji woo sama jëkkër ji ma ne ko am na lu muy tracé mais def leen tout bu mu leen gën a muus nee na moto Jakarta moo koy jël si sama jëkkër bi ne loolu la wax si kër gi ma ne ko toppal ma ko yéegal ci kaw terrasse bi nga taxaw bu génnee nga génn ma delloo waat maman ma ne ko ana aji mu ne mi ngi nii di ranger ay bagages mais aji de temps la lu muy nocc de su ma su demee parce que may ma ma wax ma ko ah mu ma waaw ma ko waa baax na ma ne ko léegi defal tout buy aji di génn na ma ko toppal ba xamal ma fu muy dugg nee na moto jakarta moo koy jël si maanaam waaw aji bu mu génn kër gi dafa yollee ko jël. di nax nit ñi di nax nit ñi ba si neex ba mu ko rek ñu ne mu këf saagam di dem sama jëkkër dégg porte bi rek teg ko ci seen nga ñu ko jël si oto bu ñuul ko moo jël si aji guddi googu moto jëkkër taa jël si ko de maman mi ngi taxaw di ko gunge oto bi taat bi ñu ngi ko féetale ci goudrette bi moo tax sama jëkkër mënut a gis marque oto bi kanam kese moo féetee mbedd bi aji ñëw fekk ñaari góor yi taxaw mu dugg seen mu dugg ci biir. très bien léegi aji ba mu ba suur reer bu jógee résidence maamu xam naa war bakkane reer ba suur ki ka woo ne ko est-ce que soxla am nga ko ba tontu kan ndax mission bi la santoon def nga ko kan la ndax mission bi ñu la santoon def nga ko mu ne waaw kan la lu tax masseuse bi na ko ay aji ay aji looy def nii mu yëkkati dix mille francs na ko bàyyil mu set lu mu ci jublu woon lu tax aji gëmloo na patron dafa am dafa wan wan lor lu tax mu gëmloo leen loolu te aji nee yaayam te li ñu xam ci histoire aji yaayam yàlla na ko yàlla yërëm dundatul bàyyi aji mooy jur te nekkul sax ci ilul janwaar yooyu la nekk nekkul sax ndakaaru aji ne dafa ëmb ne yaayam moo na ko dindi ëmb ban yaayam ban ci yaayam kan la kan na ko noonu dara dara ko noonu tissu effectivement da dañ liggéey tamit ci benn atelier de couture dégg na foofu la xamante ak Ahmed Bai aji lu tax nga ne dangaa ëmb aji kan ci sa yaay yi moo la wax ne dañuy dindi ëmb bi aji liggéey nga ci kër ba war dem lu tax nga ne moto jakarta moo lay jël ci oto bu ñuul ku ku la ak ñaari ponkol ak jigéen bu am yaram ci biir oto bi ñu jël si la ku jigéen ki dégg naa moo doon dawal ñaari nit ñooñu jël ci aji ñan la Sidi Ahmed Mbaye lañ ci tudd mais ñaari nit ñu góor lañ wax keneen ki kan la kan la waat aji ma ne aji yow loo def nii bi aji dem porte ji plainte brigade recherche brigade recherche woo patron bi ne dafa am kenn ci employé ku porte plainte patron bi woo aji ñu sama temps finance sama papa moo ma dugal mu sama papa moo ma dugal dama bëgg ngeen noté bu baax mune ne sama papa aji mu ne patron papaam moo ko dugal. parce que man damaa am sama papa génnee ma kër gi ñaareel ba maa ngi fii ma loo wax ji lay wax tontu ma ci loo wax brigade de recherche mu ne ma Sonko daf ma violé ma ne a fan mu coupé téléphone du waxaat toog man bi ma demee de recherche man ak aji ñu toog. bu ñu toogee aji ba toogee am moom dafa weddi woon ne oto jël si ko mais mujj ki dafa d'accord ne moom oto moo ko jël si parce que xam ne ne am naa information bi te li may wax nii dafa leer parce que dafa war a leer parce que enquêteur bi li wax dina si jot kon li may wax dafa war a leer dëgg lay doon ci kanam enquêteur bi aji ma ko yow aji mënu ma naam ma ne ba ngay génn kër ga du wax ak yow da nga woon da nga ba njëloo ay nit si kër ga ñu yërëm la nga ne sa papa dalaa génnee kër ga sa yaay génne la kër ga instant bi xamatoo foo jëm neen la ñu dindi ëmb bi aji ngi toog maa ngi toog ma posé question bi aji aji ne damaa bëggoon a am dëgg pour génn kër gi te ñaareel ba dama bëggoon maa xam ne su ma la waxoon na la nangam moo xew doo ma bàyyi ma génn parce que booba da ngay foone damay dem massage à domicile ma ne ko aji massage à domicile vingt trois heures zéro heure kan moo la koy woo ba man may xelaat loolu mu ne pat ma ko ñaareel ba aji mënu ma naa ma ko dama bëgg nga taxaw fii biir brigade de recherche nga wax carrément charte yu ñuy liggéeyee ma ak yow parce que da nga bind plainte te la nga bind du ndaw ma dellu na ko aji mënu ma naam ma ko li nga def ku la dugal mu ne parce dugalu ma ci ñoom ñi ngi taxaw. aji nee na papam bind plainte. te papam nekkul Dakar léegi foog mu génne lu ban papam bu ndaw bu mag la wala xam bu nekkee papam bu ko nekkul Dakar ma nga ca il yëpp parce lu leer laa ci xam gis naa waxtaan ay mbokki aji aji nee papam moo bind plainte bi te papam nekkul Dakar te pourtant da bañ koy entendre ci PV Première question. Êtes-vous la rédactrice de la plainte que voici? Oui, je suis l'auteur de cette plainte. Plainte bi nag ma ci neex dama ne nekkee na papay ajee ko bind aay na trop ci droit Adji Sarr nee la tel tel ma ci yegg demeurant à Dakar titulaire de la NNT numéro numéro téléphone tel tel tel tel tel par la présente déposer et effectivement plainte contre monsieur Ousmane Sonko pour viol et menace de mort en effet je employé dans un salon de beauté dénommé Suite Beauté se trouvant à Sacré-Cœur 3 derrière le cimetière Saint-Lazare. M. Ousmane Sonko se présente régulièrement en qualité de client pour des séances de massage, mais à la fin, il existe toujours des faveurs sexuelles. Devant mon refus d'assouvir ses pulsions, il m'a un jour étranglé et contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui. Confuse et prise de honte, j'ai voulu garder le silence sur cet acte mortifiant. en espérant que cela ne se reproduise pas. Mal m'en puisqu'il revient régulièrement et me contraint d'avoir des relations sexuelles avec lui. waaw lii ki lay woo sax du ko lu tax nga koy que lay ñëw pour mais lii rek de et cela sous la menace de me faire disparaître de la surface de la terre comprenant sa puissance compte de sa puissance et sa position dans le pays benn puissance ak puissance <laughs> Ousmane moon am bu ko tey jii di ko def comme ni ñu def seetlu daa leen jàll tëj bopp kër këram yëpp je signale qu'il revient toujours porter de deux armes cachées sous une gen qu'il porte au niveau de la taille avec lesquelles il me menace il m'indique que jamais personne ne pourra me croire si je raconte les faits et que dans tous les cas je serai montre ma ajay de aji bind mën naa bind avant de pouvoir le faire. Aujourd'hui, il m'a transformé en son objet sexuel. Je n'arrive plus à vivre à, cause de ces viols répétés. te yow yaay woo di laajte ndax ndax ndax ndax Sonko dina ñëw lu tax Sonko du ñëw hmm. cela est constitué de viol et réprimé man nag fi fi moom mooy ci plainte bi réprimé par les articles et trois cent vingt du code aji xam na sax xam na sax code pénal aujourd'hui ma vie a totalement basculé te li ma jaaxal aji bañ koy auditionné moom moo déposé plainte bi àndul ak avocat dañ ko posé question na ko juste ñu ne ko mu ne je suis courant de l'objet de votre enquête pour laquelle ma déposition est requise je reconnais également avoir notification de mon droit de me faire assister par un avocat de mon choix, de mon interpellation. J'y et consent à entendu sans la présence d'un avocat. Allez, voir l'idée. ajee wax li moo xam code pénal ba moo tax man la affaire dafa doy waar quoi boo xam code pénal ba visé article ne papam moo ko plainte te papam nekkul sax ndakaaru ay aji aji yëngal nga réew mi ah mun na waa